bismillahi rahmaani rahiim ndax mos jotul man mi ma jug feeñi lay mbiram lil mahmud la daawoowe aw turam ndax mos jotul man mi ma jug feeñi lay mbiram lil mahmud daa woowe aw turam sëtub daam la woon tey ji malax baar ci ay jëfam ba maam ja jugee bay dem la toppoon ci ak tabam sëtub daam la woon tey ji malax baar ci ay jëfam ba maam ja jugee bay dem la toppoon ci ak tabam sëriñ Moodu Mbàkke gën ku jàqaa ba dem këram mu wuññil ko loole far ke bég joxey dërëm sëriñ Moodu Mbàkke gën ku jàqaa ba dem këram mu wuññil ko loole far ke bég joxey dërëm na yaaram la daawul bodde daawul xëccoo itam ku koy jëw lay tibbal ci koo mam tey gërëm a xaja ban yéem naa sutub balla beeg maaram jikkoom yaag ji koy yonnen na gis-gis la maa ko gëm sëriñ Moodu Mbàkke baax dadaa bay ba àggal kenn du mos doom ca ay ñoñam noloolee da koy jébbal sëriñ saal di ngërëm defoon na murit daf saa dixun def ku làqi te daawul fesal aslëf ci loolee ngirug matam du xeeb nit du jëw nit daawu cof kenn kenn tam la feeñoon ci bite moo di biiram na ngeen ko xam deful xej yi buy jël saayiram sanga baatinam la njambi waxoon seex bamba te jot na yee salam amoon na yitteeg ak yëg mboolem ku mos ko xam dangay xeeb ku dul moom kenn du saflaati ak yëfam lewet domb wexatit ku daa moy du xam mbiram amum yar ami teggin te fes del ak kam rafet jukko set ab xol te fonkoon na way juram ba seex abdul xaadir lii dalaa wax ngirug ngërëm rafet jukko set ab xol te fonkoon na waajuram ba seex abdul xaadir lii la daa wax ngirug ngërëm ku mës a ñëw fi moom naw nit ba kay seere lung matam mu laañ laati kooke num def ak moodu ma am sëriñ moodu mbàkke sëriñ Moodu Mbàkke sëriñ Saalihoo daa wax ne mooy manta maa di moom te fu mu maay teew foofa seere nay mayam samay way du laal baatin no doo eggi cigroyam ku daa làq baatin wax ko taxtil nga jot payam ni ngeen rey ci moom ndax kii ku réy mucc jingalam ku koy moy na ngeen seetaan na buur léeg mu fay mbiram dana jox la saagru mbàkke faggul ma ay ngërëm ci yàlla ci yonen ak samaam bamba mi ma sëriñ moodu mbay daagul na buur jox na lay kam mboole ak mbër mi dëkkeel sant ak ngërëm sëriñ moodu mbay daakul na buur jox na lay kam mboole ak mbër mi dëkkeel sant ak ngërëm ne baax lawet ak doylu nekkoon na cib xolam mu am mbarke taarum xel nakaar-kaar li lay cëram dadaa dund suna sun yonen bii am xorom te mooy tab bu semmal kullu kuy mayti ay jirim fu nudd ji bay juug daraa bur jawal te dem di xatu waxtu julli mooy rëy ju wéy juram bu baax doonte dee dee kon dem mukk nag koo xam ku baax ak ku bon tey ñoo yam ku mat la dem ku ñàkkak ak ku woomal seeni bàmmeel xal di yam la deeti muccee xamtil ni ay jëfu la duy dërëm na ngeen dëddu duniyaa ab waraa la bul ko gëm te kum taxaree faa wit mu jooy loola del xalam na ngeen faglu dee day ñëw ku mës dund mës wee ku kay daw na foo jëm far dajeeg moom li lay xajam sëriñ Moodu xatmul lii nga wax doy na bul dëtëm ci géejug sëriñ bi bay fasoo tuuru ci mayam sëriñ Moodu xatmul lii nga wax doy na bul dëtëm ci géejug sëriñ bi bay fasoo tuuru ci mayam na bur yàlla fay koo fay dolleete ay ngërëm na bur yàlla fay koo fay dolleete ay ngërëm ci moom ak ci baayam dellu ñaan woy wi doon mbégam njaboot gim ñi bàyyeel yàlla bur teg ci ñoom loxoom te may leen dund ak wér te def leen ñu am ikam njaboot gim ñu bàyyeel yàlla bur teg ci ñoom loxoom te may leen dund ak wér te def leen ñoo amee kam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wolofal bii nag ñu ngi koy wolofal sëriñ Modou Abdou Khadir moom sëriñ Abdou Khadir moom lañ koy marsiyaal sëriñ Modou Mbaye moo ko doon wolofal sëriñ Fallou Fall moo ko doon bind jërë ngeen jëf